muy làmb ji nga xamante ni moo doon dox ci diggante Balla Gaye ak Tapha Tine làmb ju neex làmb dekkiwaat ñu ci profité di félicité ki nga xamante ni moom mooy euh, Baye Ndiaye borom Albourakh Events ak toute son équipe ñu leen di félicité liggéey bi am na solo euh, waaye nag bu ñu defee làmb ji ba pare suñu xel day dem ci ñi nga xamante ni vraiment c'est des lambologues euh, des lambologues nag laa wax ci kenn lañ ci toogal <coughs> muy buur géwal alias Coquli cuqali nag man laa xamul mooy lan man man man loolu mooy sama problème ba tey. man ñoo ngi lay nuyu Gallo. <laughs> mon jeune frère di la ziar taalibe Seexuna Saalix. waaw moom lañ bëgg de. Ibnu Xaadim Rasul. alhamdulilah taala nafan wa barakaatu. Gallo di nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp rek di sant di sant di jul di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. di ñaanal suñu wayjuru jigéen fa mu tëdd yàlla nag fu yéen mën de suñu borom fekk. amiin waay suñu wayjuru góor wi fi des ak suñu tante. Mm-hmm. yàlla bàyyi leen fi di feddal rek sunu njëbbal ak sunu yaakaar ci sunu bunt cheikhul xaddim cheikhul xayri maulana cheikh ibrahim ibn sëriñ mbàkki madina radiyallahu taala di ñaan yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko te cheikh madina mi nga xam ne tey moo toog jotaay borom madina ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi te yàlla dëgëral taxawaayam di ndokkeel borom jotaay bu taaru cheikh ahmadul moxtaar ibnu cheikh mahamadul moustapha al xalifatul awal ñu ñaan yàlla yàlla dimbali ko yàlla bàyyi ko fi ci daraja lislaam amiin di ndokkeel góor ga ne woon illaahi kalimatillahil ulya Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibn Cheikh Mouhamadoul Bachir di ndokkeel si ñam ne Modou Menda mooy ànd ak moom ci liggéey bu tedd bii Gallo di la nuyu di nuyu diina ji yëpp di nuyu képp ku ñu seetaan à travers Univers Info ak Dakar Plus ñu ngi lay fay bu baax a baax alors euh, sans plus dem droit au but rek <coughs> Mbour aujourd'hui on a assisté une journée de lutte extraordinaire mhm. macha allah combat yëpp a neex mais bi ñu ci gën a marqué mooy Tapha Tine Balla mu nekkoon làmp joo xamante ni bëri woon na polémique waaye bëri woon na werante mm. ku si nekk di xëcc jëmale sa boor mm. bu dee waa Tapha Tine yi la nee nañ Tapha moo ëpp doole mm. moo ko gën a confiant moo ko gën a nekk ci làmb ji euh, bu dee bàll Gaye la ñu ñii nee nañ yaram bi yàqu na ñii nee nañ amatul confiance et cetera et ñu jàkkaarloo waaye ci ci ci ci ci ci li nga xamante ni mooy euh, jàkkaarloo face à face moo dominé bu dee ambiance ci biir stade bi mm-hmm. Balla moo domine mm-hmm. bu dee xeex ci bëre bi Balla moo dominé bu dee daan Balla moo dominé. Mm. alors ci lépp rek dañoo gis ni Balla il a été vraiment top ko mm. mais malheureusement Tapha Tine tey xàmmewuñ ko par rapport ak ni nga xamante ni noonu la daan génne di neutraliser yeneen moromam yi. Mm. boo ñu doon defal analyse ci làmb jooju buur lan nga ñuy wax. xam nga Gallo dama ko wax chaque jour ci samay analyse mm-hmm. eh, samay analyse nag du neex a dégg ci boo fare te alors que du ma wax man pour plaire à Jean. wala pour plaire à Paul li may wax dama koy xool sama akulaay taala te damay jàpp ni que dama koy analyser comme un très bon mooy damay jël sama temps di analyser li may analyser à travers des vidéos ak ci li ma fekkee j'ai traité de théâtre kat waaye théâtre kat buy analyser làmb bu wax jooju bett na la de daf ma xam nga li sax il faut que monde làmb ñoom grandeur hmm. soo ànd ak mbër hmm. ñu di ko critiquer xoolal critiquer ban ak akki la ko mën a amal wala ban rendement bul jàpp ni boo génnee tontu kii kii critiquer te li muy critiquer neexu la tu service au lutteur déedéet yaa ngi koy gaañ ba ma ko fexee ci Ama Baldé lu ne wax nañ ma ko pourtant l'histoire m'a donné raison barki Demba Ndiaye bi Jackson daanee sox dama ni ko ni nga bëree baaxul balaa nga koy xam la sax daanaan. dem na ba ay booy jël ay téléphone sama numéro di ma saaga ay ndey. Ah te pourtant l'histoire m'a donné raison. parce que li may analise gëm ko dara ji Cheikhul Khadim duma ci arrière dala man grand fii laa juddoo fii laa yaroo mosuma tukki tukki lu góor di def pour moom boppam def naa ko du ma ragal mm-hmm. wër na Cheikhul Khadim mm-hmm. sëñ bi nag dimbali nañu ba am lu mu dindi ci ñun. nañu laaj génération deux mille beeg génération deux mille un jëm deux mille deux kii Bourdieu bref Tapha Tine dafa subir benn domination psychologique ci Balla Gaye 2 depuis 2013. depuis dix ans. pourtant Balla pour Tapha Tine bu 2013 était plus dangereux que Tapha Tine bu 2024. te jamono boobu dafa dóor Elton ba ñëpp mer. jaxase fi Bombardier ba ñëpp jooy compareel 2013 2012 2013 nga comparé ko 2022 2021 2023 ba 2024 da ngay gis ne que boobu était plus dangereux que Tapha Tine bi Tapha bi il a eu des victoires bi ma ko nee domination bi Balla Gaye def ci yow est-ce que baax na. daf ma ni toog naa dix ans daanuma donc il voit que ni que effectivement c'était très normal te alors que c'était anormal dix ans yi daan woo Yékini junior nga fi daan c'est normal Boy Niang par médical médicale Bombardier par décision médicale sa diggante Eumeu Sène ñëpp gis nañu la xew donc c'était pas normal d'avoir ali maanaam un alibi. Mm-hmm. comme dix ans dix ans daanuma te boobu alors que man maa ngi alerté sur la psychologie de Tapha Tine j'ai à toutes les face-à-face hmm. tout mais je voyais un Balla Gaye de dominateur keroog ba ñëwee stade bi Tapha Tine yuuxoo ñëpp tiit ba ñu weetee man ak Doudou dama ne ko Tapha bi ma gis Balla Gaye 2 bii Tapha gënu ko pare. Ah waaw du na ma li tax ma ne ko Balla Gaye de il est bien dans sa peau. mais boobu gis nañ Balla Gaye il a été lynché sur les réseaux. waay gars yi photo yi. loolu nag moo gën a indil problème Tapha Tine koo koo déggoon mooy Tapha day daan Balla Gaye da koy laaj mu jox la ay argument te ko woon ci technique te ko woon ci bëre te ko woon ci mystique fan la koy teg mooy moo gën a gudd moo gën a rëy mm. làmb doole cala waaye làmb sport bu mathématique la maanaam mooy bés des koy wàcc ba bés ba Balla Gaye di dafa wàcc ba le jour Tapha Tine wàcc na Tapha Tine a une forme exceptionnelle boo xam ni tey ku ko gis xam ni le gars tëddul nelaw mais qu'est-ce qui a fait la différence mooy il a été mal préparé préparé nañ ko ci doole mm-hmm. mais préparé wuñ ko psychologiquement préparé nañ ko ci doole mais préparé wuñ ko ci bëre il a été formé par des bodybuilding man maa ko wax te lii may wax wax naa ko six mois ci gannaaw c'était pas une affaire de watu des saccagelo kàddu fii ay chaîne fi fële ci piscine taal puno du yooyu mm-hmm. la lutte plus profond que galo lamb réalité bi ma moom rek quoi Balla Gaye 2 dafa teel a jóge INSEPS ñëw di contact matin midi soir parce que xam na ni ki ci bëri ci la mën a daane tafatin te Balla Gaye bu jéemoon toll ni tafaatin dafay am problème parce que soo corps du communiquer ak xel mi ak li bëgg a def loolu laa gisoon ba ni Doudou Balla moo gën a pare parce que yor na yaram wu ko mën a bëriloo il a emprunté la chemin de yaa oustaz Modou Xarañ Lo waaye wan na leen ni que mbir mi du ci ay âge mbir mi du ci gàllaat yu bari mbir mi nag Balla Gaye de yi mu daan takk ci yaram yëpp tey pratique gisaw ci dara mooy da ngay nekk dans le sérieux seul le travail paye Tapha Tine il a beaucoup mhm. mais cek ba doodu cek ba ñaak ñaata yoon laa ko wax mooy Tapha Tine a toujours eu des problèmes sur les premières cinq minutes ceeb buy dund ci moom buy résider ci moom. moom bañ na ko de ah parce que nee naa moom bés bu nekk xam na ñu koy appréhender. waa léegi tey lu bés bi wane. Balla Gaye dee ci minute njëkk la jël lay dus. dóor ko ba yóbbu ko ardo làmbam fa la yàqoo. kon ceeb boobu lu am la. ci la ko ëmb seen dóoreenu ay coup ba mu góor ca la ko Issa Pouye daane woon. ca la la dëgër daane woon eh, ca la ko Ama Baldé daane woon kon lu am la lu am la bu ma ko ñëwee xam nga gis nga mbër mbër yi ne leen gars yi di dimbali gis nga ñun chroniqueurs yi dafa mel ni ab de football gis nga ñu nekk ci tribune yi li ñuy gis jour bi nekk sur le terrain du ko gis Balla Gaye 2 connaît mieux Tapha Tine ni Balla Gaye 2 xamee Tapha Tine xamewul noonu Balla Gaye 2 dañu def face face man leen ñemewu ko bu 2S ba ñii di daggal ñii di dagg di wàcc ñii di TikTok te effectivement la ma gis keroog 2S Tapha ñemewul Balla Gaye 2 lan lañ ma jox comme alibi dafaa dafa timide Tapha dafa yaru Balla Gaye dëkkul dëkkul. da ko ëpp làmmiñ te alors que Galaw mm. la psychologie est primordiale dans le sport de combat mm-hmm. Galaw la psychologie est une chose essentielle boo xam ne doomu aadama bi da koy am pour réussir ñàkk ñàkk bu ko ñàkkee day ñàkk mm-hmm. la psychologie c'est d'avoir une mentalité de fer mm. ñun ñi tey mm. saa boo xëyee gis ñu saaga say ay quarante-sept fois mm-hmm. soo amul une très bonne psychologie da ngay bàyyi. léeg-léeg nit gis la nit ci internet du jugé la. Hmm. wax la loo xam ni. Hmm. daf daf lay touché. daf lay mais da ngay faxas. continuer parce que danga war a am psychologie bu baax. Hmm. tey Tapha Tine a inversé les rôles ni mu ñëwee baax na il a été très bien entouré. Mmh. ñëw na ci lu lucidité foo ree xappi effectivement bala Gaye 2 bu ñuy raté calme en mode très découragé un calme olympien mooy il il voulait mettre Tapha Tine man j'ai vu les commentaires Balla Gaye 2 tey ñëwul de. waaw ah, parewul. Balla parewul ah. Balla Gaye 2 tey dafa découragé ah. Balla Gaye 2 tey day douté. donc Balla Gaye de mentalité boobu la bëggoon abal Tapha mooy ërtal na ko ci signature yeeg nangam-nangam tey bi mu ñëwee il a laissé Tapha Tine mm-hmm. loolu mooy stratégie. alors alors waxoon naa leen ko euh, tey dañu toog kër boo xamante ni day jaar si digg bi dinañ waxtaan mais buur euh, li ma gën a seetlu ci Tapha mooy préparation moom dafa préparé woo ci beneen sport. si sama xalaatu bu gàtt rek. waa xam nga ci po bu sport boobu la nekk est-ce que du loolu moo ko yàq. waaw xam nga nee na woon naa leen dama alerté woon bu yàgg. je respecte très bien ñu ko préparé mais ci lan lañ ko préparé. voilà dama ne woon Tapha Tine a été mal préparé parce que il a été préparé par des bodybuilding un bodybuilding n'est pas un lutteur. préparer nañ ko ci doole. mais encadré wuñ ko psychologiquement. préparé nañ ko ci doole mais dafa yéex a takk ngemb. Tapha Tine devait être là mois ci gannaaw yoo xam ne école ba rek lay dem ak salle. Mm. parce que il est entouré des personnes yoo xam ne xam nañ ko. Mm. comme Bada Dione Père Mbaye Ndewane xam nañ ko ñoo ko yor bi mu nekkee xale ba tey. Mm-hmm. xam nañu naka la ñuy préparé Tapha ba mu retrouver wu moom. sa propre personne mais dama gis ne que Tapha tubaab yi la gënoon jox cër que ses propres entraîneurs Tapha de se faire peur. kon loolu yuuxu yeeg. non il voulait que que que Balla Gaye di ragal ko loolu nag c'est une c'est une signe de faiblesse mooy il voulait installer <laughs> la peur. su <laughs> maanaam maanaam sur bala Gaye 2 te alors que Balla Gaye 2 xamoon na li kër bi ñu yóbbu Balla lu mu ko wax. dangay ngay dindi stress da ngay dindi stress. ñu bari jàppoon ni Balla day day wax. déedéet Balla xam na ko psychologiquement xam na ko ba loolu amee Balla dafa nit ci xel ni ba ñu dajawaat dinaa peese la mu defoon ak li mu indi tey est-ce que benn lay doon dafa bi mu ñëwee dafa changé personnage mm-hmm. comme joxe comme alibi nii lañ may rey liñ may rey yow doo ko dindi kii du ko dindi kële du ko dindi kële du ko dindi alors que tu l'avais fait. ci seen duplex bi waaw. nga ko arène nationale pourquoi nangoo ko def fii te bi micro yi wàccee yow mu waxante ngeen loo xam ne weñ bu ci dal dee. ah bon pourquoi il devrait être inférieur psychologiquement ak Balla Gaye 2 donc c'est ça alors que pendant temps Balla Gaye 2 mu ngi defaru mhm. mu ngi defaraat entourage di xool. ko yàqal dem récupéré waat leen Thierno Gueye yeneen itam yi préparé wu ba xam fi mu jëm parce que bés bi bés bu mu soxla woon la bés bu mu gëmoon la bés bu mu bëggoon la dafa gëmoon ni kii va baar Tapha Tine d'accord dafa gëmoon ni il va battre Tapha ci ci ci ci battre Tapha boobu la ñu taxawee la manière dont Balla a lutté aujourd'hui mm-hmm. ci laa bëgg ñu taxaw ko parce que gis nañ ni Balla xeex na ak ak ak Tafa xeex na gaañ na ko gaañ na ko mm. mais tey Balla li muy xeex yëpp yëpp yëpp mm. xelam ma ngi ci exploité bëre xam nga ndax ci kaw xeex bi lañ jékki-jékki gis benn caxabal boo xam ne kenn xaar dama damay ñëw ci commentaire dafa am benn dafa ga am benn gaan bu <laughs> damaa sonn dafa am benn gaan bu commentaire ci TikTok bi ne pourtant buur danga nga woon bu ñu xëyee Tapha Tine day dóor Balla Gaye mu daanu ma ni déedéet dama ni Balla Gaye bés bu ñambaanee xeex bi ak bëre bi bés bu sampoo cela veut dire que samp box may tafaatin distance tafaatin am na mille opportunités pour door ko mu daan c'est ça réalité mais bala Gaye li muy bëree li muy xeex la mu ngi bëri loolu ma moo tax ma ne leen man ak sàppale suñu émission bu mujj ba su bala Gaye ñambaanee li muy def les vidéos sont là man bañ ma ko ma démentir bu ñambaanee li muy def day daan bés bu sampee may Tafa à distance ñu xeex Tafa mën na ko dóor mu daan te si c'était le cas Tafa mën na ko dóor mu daan. na ko coup ko dóor nag bu ko déstabiliser. ndax au début waaw ndax Tafa moo gën a jot mais Tafa dama leen ni woon Balla kuy bëri di teg tànk gauche daf lay sonal wax naa ko ci live ñoom Mor Kassé barki dem ak ñoom grand Alioune Guèye kuy teg pied gauche. soo moytul Balla Gaye dalay daan parce que daf lay ñooxu te su la ñooxoo du mbër mi wàcc ci ay tànkam day siggi pour xeex ak yow Balla Gaye un droitier moo ko mën a indil problème comme les booy ñaa ele ko Tapha Tine bu tegee gauche day jajax loxo gauche bi du ci xeex donc day ubbil Balla Gaye champ boo xam ne en tant que droitier Balla Gaye day jege te Balla Gaye de xamoon na ni ñun expert yëpp sa xamoon nañ ko su Balla Gaye de njëkkee touché Tapha Tine wala mu dox ci kawam dina ko indil ay problème te loolu moo am ñooxuñu ko teel a déclenché ko yi mm-hmm. te bi mu koy déclenché xamoon na ni dina jël ko mm-hmm. mais li nit ñi mënul comprendre dafa ak cër yi ni mu jotee macha allah. Balla Gaye de naka la war a mën a def bu dóor Tapha Tine bu yóbbu ko ardo loolu doole defu ko bëre defu ko mentalité moo ko def Balla Gaye de était très bien assis psychologiquement il avait une mentalité de fer il avait la mentalité d'un gagneur mais caxabal bi bu caxabal la boobu xam ne xeex ma ca kaw jeex na. te su ko yóotuwul caxabal ko du ko daal li mu bëri daa rey de. Tapha rocceeku ji te bu Tapha rocceeku woon it Balla Gaye 2 daf koy dominer waat parce que Balla Gaye boobu jël na lii devant ba pare. Tapha bi mu demee Ardo ñëw la làmbam yàqu. parce que il a pris des coups yoo xamante ni que tey bu amoon caractère bi war du ko jël. loolu mooy dëgg parce que ñemewul Balla Gaye wallahi ñemewu ko hmm? non non non ko wax ji du neex mais muy dëgg tu crois euh, euh, galo un géant comme tafatin war na jël ko mu jël ci Balla Gaye de hmm. c'est normal bari sax il a mal lutté munoo nekk un géant buy mesurer ni nga ni nga ni nga toll tey di bëreeg Balla Gaye de un combat rapproché Tapha dafa waroon na tawee ko moom ay ko mën na dal Balla Gaye 2 te Balla Gaye 2 du ko atteindre maire bi dañu prix mu bëgg a jeexal bés bi donc il mal lutté. pourtant moom moo doon woo Balla naan ko ñëwal ci géew bi ñu bëree. ñëwal lii jot na dañuy tëddi. waaw des trucs comme ça. waaw waaw non non non Seck dafa am lu ñu leen gëmloo te loolu laa déggoon bool bool lépp di wax. ngay ne ko màgget gi. Balla Gaye dee gaynde gu màggat la ñi naan dafa feebar ñi naan jaaxal na man leen walaay xamagu leen li ngeen wax am na ñu bëri ñoom mën nañ ma témoigner témoigner keroog ba ñu génnee deux heures billaahi wallaahi watallaahi barke sëñ Mbàkke maa ne duudoo ngi ñoo ànd dama ni ko làmb ci jeex na tafaati mii ma gis doodu defe naa ci guddi googu même vidéo bi lañ def dama ni Tapha ma gis su rectifié wul mentalité am ba combat bi Balla Gaye da daal. mais bu wax mystique nag parce que gars yi nee nag du neen. ndax Tapha jàpp tiim ko di ko dóor. mënul fayu wala mënul protéger boppam. Hmm. am na ñu ko wékk nag ci mystique. xanaa kon bi Ama Baldé di jël tànkam mystique la woon. voilà hmm. la woon. bi koy saa puy daan mi yooyu. mais dóor yi daa métti de te moom bu jàppee ñeneen ñi da leen di malmené quoi da leen di duma. Euh, waaw d' accord naa d' naa li nga wax moo tax man la. Hmm. Tapha Tine bu 2013 était plus dangereux que Tapha Tine bu 2024. jaloor yi mu def 2013 def ko sax 2024 2013 demoon na ba ku ñu jox avance su Tapha Tine avant Balla Gaye di ko arrêté say mbokk woo la réunion de famille. Hmm. parce que boobu soxor na te il était très jeune donc il a le temps devant lui. c'est un très très très grand champion Tapha waaye il faut que ñu assister ko psychologiquement ba effacer li ci moom parce que Tapha Tine mënutul bëre combat bu set Tapha am na opportunité bëre ak Lo am na opportunité bëre ak Siteu am na opportunité bëre ak donc mu neex mu naqari moo Gris Bordeaux suñu bëree. d'accord ci àddina. d'accord pour tëj yaa ngi wax Tapha Tine opportunité yi mu am pour euh, pour bëre yeneen ñi mais Balla fa mu jëm. Balla jamono ji nee nañ mooy il est l'empereur de l'arène waaw loolu la trophée boobu la Aziz teg na si Doudou alors léegi fan la jëm nag xam nga galo dafa am éventualité bu buur géwel di wax te saa bu ko waxee ñu bañ muy ban dama la ni woon la leadership de Modou Lo dérange Balla Gaye 2 hmm. Balla Gaye 2 ne pouvait pas comprendre Modou mi maa ko daan ñaar yoon daan ko avec la manière tey Modou Lo nekk un roi des arènes di buur di bumbi jàpp booy di biñ ko nee tafa tafaatin dëri bëriwu ma ak moom daan Ama Baldé affinité bi am diggante Ama Baldé ak Balla Gaye 2 daan booy ñaar mi ko daan moom Balla Gaye 2 donc Modou Lo est le roi mais Balla est l'empereur waaw naa leen ba su paree ci tafatin neex neex naqari bëgg na dugg jàkka yaa oustaz julli fa safa ak witar ah si mais déggoo li yaaw saas wax julli na fa safaa ba noppi mais déggoo li yaaw saas wax man dans la lutte galop je ne dirai jamais jamais d'accord làmba sport xaalis la si Modou Lo baa Siteu wala Siteu baa Modou ku ci nekk ci ñoom da ngay bëgg a nekk un empereur plus nekk un roi des arènes gala empereur bi li ma daal dafa neex te dafa bari chaque fois on te un million cinq cent ba keroog ngay bëriwaat mais am na ñoo na xam ne reconnaître ko parce que jàpp nañ. est-ce que est-ce que le CNGA avait roi des arènes. je pense bien. non. ba tey le CNG ne l'a jamais mais làmb nangu na ko. waaw làmb nangu na ko. Ah làmb mi nangu woon loolu nag moo nangu li moo mais xam nga làmb. ñëpp a hmm. nangul ni Modou Lo mooy le roi incontestable. incontestablement mais ah. Balla Gaye 2 actuellement est l'empereur des arènes incontestablement. mais gars yi nangu wuñ ko. waaw mën nañ ko bañ a nangu te pourtant mooy làmb ndax ndax tey tàkk na couronne empereur ñibbi waale ak moom te couronne trophée boobu aussi la ñu doon bëri donc schéma la le schéma bi jóge géejawaay daa jaar corniche géej gi fa lay indi diis. mbaa mu jël corniche bi jël péage bi fële jàmm gën kenn mënu ci dara. loolu daal nga gis comme. yàgg yàgg la bataille de Dank aura lieu Modou Lo newoon naa ko kuy aji màkk doo amee ay bor aji nga màkk ba ñëw waaye da nga fay bàyyi ay bor te Modou Lo lépp lu mu am ci àddina bëri Balla Gaye doo ko gën a. moom nee na bëggatul revanche. Ah, ay wax la waxi làmb la rek léegi ñu ne bu wóor waaye ñoom Aziz naa naa Aziz amul suñu njëkk mënuñ jënd. suñu ceeb yi suñu biir kër yi Aziz Ndiaye joxuñu ko luñu location fayal suñu jàng doom mayuñu ceeb mayuñu dul suñu nit la te on l'assume c'est un ami duñu tere wax li ñu gëm ci làmb Modou Lo bu bëree ba bàyyi te daanul Balla Gaye de dina am lu ko naqari fu mu taxawee ne maa fi man Balla Gaye na ko maa la man Siteu dafa ne woon couronne bi dérangé wul Aziz man maay dérangé man mi koy bëri su ko jëlee nga la waay tarkindaa bi bu nekkee le roi des arènes naa teg koronam Balla Gaye ku mën sa morom duma du waxi saytaane. <laughs> tey benn booy nee na ma buur buur yaay saytaane or bi. <laughs> nduru na ko de. ma ne ko man bu ma nekkee saytaane or bi xanaa Fadam mooy Fadam Fadam mooy. jarbaatu mooy bronze bi wala jamono. non moom jarbaatu rajim la. waaye làmb ji galo mu neex mu naqari loolu mooy li am. Mm. Siteu lu mu mën a am bëgg na régler ses propres comptes ak ñoom Aziz Ndiaye jaarale ko ci Balla Gaye 2 Modou mu mën a am ci àdduna balaa moo ajiwaat bu dee balaa déwén bëgg na ajiwaat wala déwén jaa mënula aji ba ñëw amee bor Balla Gaye def ko daan daan ko avec la manière façon bu ñaaw bu naqari waa parcelle ba tey mm-hmm. fu ñu waxee commentaire chinois yi commentaire yi ñu commentaire ci Modou Lo du neex kenn te Modou il est dans les meilleurs de sa forme. Balla Gaye mi ma gis moom si Simba. pare na. mu ngi ñëw donc pourquoi pas nañ teg couronne royale bi ak couronne empereur. li li américain bi naan wetten si attendons de voir alors mais en attendant dañ lay remercier bu baax di la bàyyi nag nga dallu ji parce que <coughs> vraiment. jeexal euh, li nga def moom. yombul su la neexoon nga ni bii pour rek ngay ngay ngay toog wax mais da ngaa boole ñëpp njaboote macha allah nangul ñu ko bàyyi sa temps tey da ngaa yendoo reporté ñu ñëwaat jëlaat sa temps ñu ngi lay jéggalu bu baax di la remercier di la ñaanal jàmm et di la bàyyi aussi nga tàggatoo ak mbokk internet la doon seetaan. di bëggee ñëpp di baalu àq ñëpp nag. Mm. ndax nga wax lu lu laar sensibilité nit ki yàlla seere ko ci. dëgg di ñaan yàlla mu may ñu kàttanu màggal gi. ba ñu jekk ko def ko ni ko borom bëggee muy màggul daaru xudus ak màggal gu mag gi màggul daar xudus di bis bi nga xam ni moom la sëriñ buy joon boromam ba Cheikh Modou Moussa ne ku fi fanaan bisu màggul daar xudus sa yaram araamal na sawara màggal gu mag gi nga xam ni ca la naan xaratu yow ma sabti di bésam boobu nga xam ni ca la doon jëli nattu ya ngir bëgg a dimbali ummatu sayyiduna Muhammad alayhi salaam ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu jekk ko te buñ ko jekkoo yàlla nañu ko tal fi barke ci xam galal di wax eh, jërëjëf yow màgg yow dafa yàgg du tey eh, wax dëgg yàlla benn xam sax nekkoo ci internet donc te tu m'as toujours donné donné cër boobu mag dañu wax ni ku ko respecté rek yaa ko sonal di sama xarit Khalidou Malboro ah borom borom soxna si mu xalaat yi jekku nañ ko. tey tey tey yow yaa ngi ko doon gis stade. mais dafa caméra dañ doon braqué ci moom. waaw mais parce que léegi. ak deux minutes Khalidou waaye gisoo ko ni mu nii xanaa. man ndaw si dinaa wax ak moom ah. femme kii jabar ji c'est un ah. kii jabar ji malfaiteur dëgg la. non ami malfaiteur dëgg nga barki Serigne Touba bàyyil booy bu waaye eh. ami bàyyil booy bu waaye tamit ah, non ba tey ba yow tamit nit day am xel quoi quand même galo di wax gaay jërëjëf di nuyu sama xarit Amath mhm, ah doomu ndey duudu duudu moom duudu ak ak Ali may gi ndakaar yëpp xam nañ ko jërëjëf galo jërëjëf alors euh, Kalidou ñuy remercier bu baax buur di ko jaajëfal di kontaan ci moom euh, li ma neex ci moom mooy buy analyser xoolul lu neex nit wala lu naqari nit dina wax li nga xamante ni moom la conscience am Euh, joxe euh, ñu ko ci félicité bu baax parce que c'est pas la première fois ngay analyser ñuy gis li nga analyser Ama Baldé Modou Lo yàggul fekk nañu fi booy ñaa Modou fekk nañu fi tey nga def Tapha Tine euh, Balla Gaye aussi macha allah yàlla na xam-xam bi yokk yàlla na baat bi wér mais aussi dañuy félicité encore une fois Balla Gaye 2 parce que dafa nekk nit koo xamante ni li mu def ci làmb sénégalais yi waruñu ko fàtte dañ ko war a bàyyi xel c'est un très grand champion te li mu def ci làmb dina yéex moroomam def ko à de vingt cinq ans nga jër roi des arènes te bi ngay jël roi des arènes pratiquement c'était une euh, c'était impossible pour nit jàpp ni war naa mën a jër roi des mm-hmm. arènes parce que mm-hmm. dafa amoon champion bu fi nekk depuis des années depuis plus de quinze ans di régner ñii ni ay conseil am laa soxla ñii ni bëgguma bëreek moom ñii ni dafa mystique ñii ni du musa daanu Balla jël ko avec des risques et périls daan ko avec la manière deux fois donc kooku noonu wax dëgg yàlla ci làmb amatul lu mu deseel làmb amatul lu mu deseel waa géejawaay dañ koy ñaanal jàmm l'empereur yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na si ay yeneen dam topp te buur joxe na fi ay possibilité de combat yoo xamante ni bu amee ci réew mii dina doy waar alors <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax buur di encourager Tapha Tine waaye aussi di féliciter Baye Ndiaye merci beaucoup la prochaine